billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen balu am di leen balu am jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ci teg Cheikh Ahmadul Maxtaar xalifa Daaru Xuddoos ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gi di ndokkeel itam wilaaya bi organisé fédération bi ci njiital Serigne Moustapha mu soxna Astou ambassadeur kàddu yi gàtt lay doon liñ fu mat a wax nañ ko damay xanaa xamal nit ñi ñi nga xam ne ñoo fas yéene tënku ci xel ak xalaat pas-pas ak koom-koom ak xereñ ci lii nga xam ne bëgg nañ koo def muy raay bi raay bi boo ko waxee di nga wax xaadimu rasul mi digle jumaa ji te bi jumaa ji laataan am raay bi war a dañu koy fàttali ngir ba zakkir ay na zikra tanfa'u mu'minin bi mu rëddee quatre sur soixante jumaa ji donc dañoo waxoon ne kii day gént loolu lañ jàppoon Cheikh Mamadou Moustapha ne jumaa ji mënta ne muy si ci raay bi ne kon da ci yokk raay bi daa dem loolu daloon na rasulullahi alayhi salaatu wasalaam daloon na su fekkee ne pas-pas ak gëm li nga xam ne moom la sëriñ bi digle moo tax murit yi wala sénégalais yi wala africains yi di mën a taxawal dara war nañoo mën a référence ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mi simboon seen bu rëy bi ci jamono ju jafe jafe jafe muy contexte mi crise 1929 xam ngeen léegi nii wax nañ ba tudd jëmm mënuñu ko ñàkk tudd muy Cheikh Ibrahima Fall daa am lu jiitu raay bi muy jumaay njareem te sëriñ bi doon laaj am ca laaj tem ñen ab këll jëmm ju sant caab mu jóge fa mu jóge cee sooju mu jëm si njaareem jox ko fetal ne ko lu dox sa digganteeg moom am ko doon santu mu ne dox sa digganteeg moom jëlal bakkan këll bu fees ak dërëmi ngurdu loolu dong la ñu woon ñun ci jumaay njaare bi kon loolu la jëf ak pas-pas mënu ko weesu ñu soo a ñëw ci raay bi nga xam ne bii fàttali ni leen léegi lépp li ci jëf ànd koog yoon murid yëpp nag loolu la gën a fàttali ci tënk Cheikh Ndigal su fekkoon ne tey jii dañ naan 40 kilomètres yii 45 wala 50 kilomètres yii nga xam ne moom la Cheikh Moustapha defar ne dañuy laaj 100 milliards kon 50 yow yaa ko joxe. loolu mooy vérité historique te mënuñ ko ñàkk fàttali faaw ñu fàttali kon mu ñëw ci présenté ñi nga xam ne ñoo fi toog ñu war a ànd ak ñoom sumb liggéey liggéey bi incha allah dama ci jiital sëriñ Makhtar Sarr muy ab dong di mbokk di wëllëri ci kër gi jàng li ñu war a jàng xam li ñu war a xam am yar ak teggin ba soo ko gisee te waxul ak yow da koy jàppe ab dong bu xamul dara jàngut dara yoon murit lu nekk ngi ci biir dama bëgg rek ñu ñaanal ko ngir Serigne Touba jàpp fanam te li nga xam ne moom lañ sumb ànd kook moom ñu yeggale ko ba sumb yeneen naal mu nekk sama càmmoñ mi ngi nii sol li ñuy wax bàyyi bi ñenn ñi naan Hizbut Tarqiyyah ñi nga xam ne ñooy ñoom la fi état bi yónni te ki ko jiite di Serigne Samba Ndiaye du ñu ñëwaat ci présentation bi dégg ngeen li Cheikh Serigne Cheikh mu Serigne Abdou Latif wax fi mu jaar ak Cheikh Mamadou Mountakha suñu kilifa pas-pas ba mu am bañ koo takkalee ndombal tànk ak bëggam bëgg jëflante ak sëriñ bi ak yoonu murid ñu wóolu ko ci biir loolu jox ko li nga xam ne mooy. li jëm ci raay ci biir Sénégal mu fas yéene ànd ak lëg noonu liggéey bi ci anam yépp ndax lëgéey bi dafa laaj xam-xam dafa laaj xereñ dafa laaj koom-koom loolu mooy indi nit ñi nga xam ne danañ ci mën a yaxantu ngir am lu ñu yóbbu seen kër kon ñu ngi koy sargal di ko ñaanal suñ borom dimbale ko mu ànd ak noonu liggéey bi yeggale ko am na ab structure kuréel bu ñuy wax M&A capital foo déggee capital xam nga ne koom-koom moo fay dugg ndax raay bi du njaareem Touba dong amaana bu doon loolu dong lañ soxla kon ngir defar ko bu kàddu sëñ mu doxaa jibee murit yi man ko defar waaye dangay ngay jóge ndakaaru ñëw jàll si Touba jóge ndakaaru dem ba Tiwaawan sax loolu bokk na ci li ñuy waxtaane fii tey jii GTS mooy structure bi nga xam ne état bi moo ko samp ngir mën na saytu lépp lu jëm ci raay ci biir senegal ñu bëgg ko tekkal bu ko état bi an mënta def moom dong mu sas ay nit ñu ànd ak ñoom def ko loolu mooy ci terme terminologie bi ñuy wax PPP mooy public private partnership public bi day ne ñi privé bi ne nii ñu ànd lëkkaloo liggéey ci xam-xam ak xereñ ak koom-koom ànd nañu itam ak GMMD mu nekk société boo xam ne ñoom ci loolu la ñuy liggéey li ma lim nii <coughs> sëñ Maxtaar dina ñëw ci ñi mu représenté man mii ma représenté waxoon naa ko société bu ñuy wax Bechtel ca Amérique ak société bu ñuy wax GMD Holding ca Singapour ak beneen société bu ñuy wax Aecamp ñoom ñépp ci ni ma ko tënkee nii ci xam-xam ci xeriñ ak koom-koom mën nañu ànd ak ñun ñiy def ko kon sumb bii warta mën a doon luy lu luy tardé dafa war a gaaw te fi naan bokk na ci li nga xam ni moom président Macky Sall na ko bàyyi fi lu mel nii nga xam ne danañ xam ne kon defoon na fi lii kon ci tënk daal loolu mooy wax ji loolu mooy euh, présentation bi di nokkeel suñu bokk chinois yi nekk fii ni haaw di leen xamal ne ñoom lañ fas yéene ànd ànd ak liggéey ànd ak ñoom liggéey ci raay bi ngir ñëw xariñ lañ ci raay ak ci domaine yu bare bare bari sax nag te jàpp naa ne buñ ci duggee ñun ñu dugg ci ah, sëriñ bi nga xam ne moom daf ne mbir mi mbirum raay bi muy njaareem Tuubaa mbirum boppam la mu taxaat su fekkee noonu la demee te Tuubaa di màgg màggin woo xam ne ah, mënee su koo takk walla gaaw na lool bokk war nañoo xel lu jëm ci jumtuwaay yoo xam ne dina indil njariñ dëkk bi ak waa dëkk bi rawatina ci xëy dong ngay lax saa yaa ngi fi dañuy lax saa yu génn duñ mën a am am xëy lii bokk na ci amaan leen mayum xëy ak station yi nga xam bi mën nañ ko fi def ci biir dëkk bi ñu ci yaxantu loolu sëñ Maxtaar dina ci ñëw kon lii itam mooy wax ji di leen gërëm di leen sant te ñuy fàttali ne bu waxtu wi jibee nañu dëkk julli ji te ñëwaat yeggale waxtaan wi wa rahmatullahi taala wa barakatu